voilà mbokk internet yi ñu ngi fii ak euh, Mame Maty Mbengue euh, mu nekk euh, plusieurs fois championne d'Afrique tey nag mu ñëw fii ci musée Pape Bouba Diop di fi def participation ci musée bi indi fi trophée yoo xam te ni ay distinction yoo xam ne defoon nañ ko moom ci jëmi boppam léegi ñu laaj ko li nga xam te ni nii mooy ay jógam tey bi ci musée bi nga xam ne moom la ñu duppee Pape Bouba si interview bi waa nag li ma waral fii moom xam ngeen ko mooy que euh, au mois de décembre j'ai été dañ ma décerné woon benn nomination benn prix distinction bu ñuy wax Eaux FM léegi distinction boobu nag ma ne man rek ga ñëw ma ko peuple sénégalais moo ko moom a sama coéquipière toute génération yi nga xam ne de 86 à mille ñoom laa ko àndaloon gagné trophée yooyu ñoom ñoo ko moom alors je me suis dit pourquoi ma koy bàyyi sama kër ah mieux vaut ma andi ko fii boo xam ne ça va servir de d'exemple et de leçon à la nouvelle génération à venir pare magnifier sama reconnaissance à l'égard de la population bi nga xam ne ñoom euh, population sénégalaise bi nga xam ne ñoo ma accompagné woon ah joxoon ma sympathie reconnaissance ma ne kon je pense que que cette distinction mérite d'être ici tout à fait Mamati euh, sur le plan sportif euh, xam nañ ni modèle nga ci xale yi. Hmm. Euh, ban lancé nga leen di lappe nga leen di lan benn appel nga leen di lancé d'autant temps yi dëkk bi dafa xaw a yëngu sur le plan social am hmm, hmm, il faut avoir ni ñu koy waxee nit xale dafay dal dal ci éducation la bokk te suivre ses parents bu ñu nee tëll rek nga ne rajax Euh, toujours il faut nga am si koy roy te ko booy roy da ngay roy si ki nga xam ne dafa patriote te man euh, ñoom Mariama Ba ah ñoom Caca ñoom Ayapuy ñooy ñooloon sama royukaay. parce que dañoo wane lu lu rëy dakaar ma ñëw gis leen bëgg leen ndax li nga xam ne moom nañu service Sénégal kon nag jumelle génération li ma leen di ñaan mooy nañu déglu seen ay parents parce que c'est très important parce que parent mooy éduquer te ñu dal. xam na Sénégal bi ñu ñoo ko moom que ce soit sur volet sportive ah culturel ah traditionnel fi mun ci doon ñu ñooy ñoom ñooy relève Sénégal ñoom ñoo war a construire Sénégal kon suñu dalul réew bi du mën a du mën a avancer te économiquement le futur c'est la jeunesse. Mm-hmm. est que tam li nga def tey ñu ñu ñu sargal la nga jël li nga xam ne moom lañ la sargalee nga indi ko fii ci musée bi. ban appel tam ngay lancé ci yeneen xale yi nga xam te ni sur le plan sportif wala culturel sax ñu ngi yëngu ci ci itam war a am yeneen ni euh, distinction yi ñu leen di jox. waaw musée bi boo seetee Sénégal ko moom fii la dekk si stade bi ñu tuddee ko nag koo xam ne dafa def lu rëy Sénégal muy maître Abdoulaye Wade musée bi tam ñu tuddee ko koo xam ne légende la si sport bi muy football bi ñu koy wax feu Pape Bouba Diop. kon je pense que boo représenté Sénégal fenn nga doon fa ambassadrice ou ambassadeur. nga jóge fa ñëw fii defe naa ne soo gañee dara exemple la nga ñëw ko teg ko wane ko réew bi ñëpp a gis ko muy exemple si xale yi nga xam ne ëllëg su ñu amee trophée ñoom tamit lii ñu gis nii dina leen permettre ñu ñafe pour am ko ñoom tamit def la même chose andi ko fii. merci beaucoup Mame Maty euh, roy nga ci ñi nga xam te ni ñoom nga war a roy ci say mag. say devancière nga comme nga cité ci ñoom ay ay ak ñeneen. Mm-hmm. ñoom ay ñoom Kumba Dikkal Jaawara ak ñoom. Euh, ba ñoom ba tey ji nga dégg say kàddu kilifa ba tey jii suñu borom sargal la euh, teg la ci euh, dayo bi mu la teg avec euh, honoration yi nga xam jot nga ko am ci basket yëpp vraiment le peuple sénégalais ça wax te merci beaucoup. Ah,